لله الكريم سلمنا على asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Modou Mountakha ñu ngi lay nuyu te dila la siyaare bu baax si turu Serigne di Fall sa murit boobee di jëw jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di la jottali ab nuyoom di la jottali ay cantam ak i ngërëmam ak i ñaanam kàddu yi nag ñu di ko jibal si turu Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng mi toog di jëw jëwriñam mu tànn ko teg ko si kanamu njaboot gi. mu ànd ak njabootuk Cheikh Rafal gépp nu teew fii mboolem buntu kër yi nga xam ne ñëw seq kër maam Cheikh Ibrahima ñoom ñëpp seeni jëwriñ teew nañ wala seen ndaw yi jëwriñ teew nañ ña sës sa ñoom gannaaw ba nga xam ne ndigal lii nga xam ne moom la sëriñ bi mujj a joxe mu jëm si njabootuk Cheikh Rafal gi te jaar si sëriñ am Amdi muy ndigalul nu soññente si lu gën a sàmm war may Touba muy dëkku sëñ Touba bi nga xam ne amul lu moom ak sàmm war may njabootug sëñ tubaa gi ak it waggar kàddug sëñ tubaa gi di sa kàddu gi ndigal loole ba mu agsee fi sëriñ bi dafa daal di woo njaboot gi yëpp ñu teew mboolem ku bokk ci kër maam Cheikh Fall mu daal mu jottali ndigal li xamal leen nag ne leen sëriñ bi moom li mu bëgg faw day am kon lii sëriñ bi bëgg nan ko ko defal ñu daldi di tàkk aw yoon mu tànnal ñu ko mu ne nun li ngeen di njëkk def mooy na ngeen ma wëral mboolem ku bokk ci njabootu sëñ Touba. tàmbalee si jëwriñ yii nga xam ne ñoo fi ne toogal fi sëñ Touba ak mag ñi nga xam ne dañu fee toogal ay mag ñi àndoon ak Cheikh Fall si ëttub sëñ Touba di liggéey ba sàkku di sàkku ngërëm na ngeen ma demal si ñoom fenn fu ne ngeen yaatalal ma fa ndigal li te sàkku fa ñoom ak jàppale si lii sëriñ bi bëgg nu am ko. loolee ban si jógee lanu lanu tànn ay ndaw boole noog sëriñ Assane mii nu dem si mboolem buntu kër yi rek muy sa buntu kër yi rek dale si kër si Amadou Moussa Mbacké euh, fenn fu ne ba nu fa demee yóbbu fa kàddug sëriñ bi xamal leen ne leen sëriñ bi de lii mu digal sëriñ am di sëñ Cheikh Ibrahima Fall xam naa dafa day ndigal lu nu waaye ndigal li moom naka jëkk Cheikh moom mooy baatu mooy baabul muridin ndax ñëpp nangul nañ ko ko kon nag bu demee ba jamono demee noo xam ne ñenn ñi am na lu leen këf war na nag ñu dellu siwaat nag dellu siwaat taalibe yi si li nga xam ne moo nu booleeg sëriñ bi muy ak taalibe te sëriñ bi li mu bëgg mooy wet gu ne ña fa féete dollee farlu dollee góorgóorlu ba li sëñ Tuubaa bëgg si dëkk bi la taxoon mu sos ko ak lii mu nu fi bàyyil muy ndono muy alal joo xam ne ñëpp bëgg nañ ko te sëñ Tuubaa rekk ko am ñu waggar ko sàmm ko ba dara du ko ruur dara du ko yàq waaye fenn fun si dem rek am nañ fa kàddu yoo xam ne kàddu yu yéeme la ku nu dem rek danaan ñoom amu nu benn baat benn baat rek a fi am te Cheikh Modou Mountakha rek a ko yor wax ne ñoom dégluwuñ kenn nee na dégluwuñ kenn soxluwuñ kenn loo digle rek fas nañ ko yéenee def loolu jëwriñu sëñ Tuubaa yi sa sa bopp gi ñoo ko seere ñoom ñëpp kenn desut dale si sëñ Ahmadou Mokhtar mi nu njëkkee ba fii nu mujjee démb di sëriñ Cheikh moom sëñ Abdou Khadir bi nu fa bàyyi koo topp nañ kër yu mag yi nga xam ne dajaluñ sax Mbàkke ndax dajal moom mënuñu ko sa njaboot kenn mënu koo dajal waaye nag ab tàmbali rek la waaye fenn fu si dem ñoom ñoom de li ñu njëkk a gis mooy moom sëñ bi loo leen fàggulaat muy dajale goo dajalewaat nag sa njabootug bopp gi di njabootug sëñ tubaa ndax kër yooyu nga xam ne kër gu ne la fa nekk sëñ tubaa ko fa def kenn ñu ñu siy dund ba di si dundal ñeneen xam nañ ni ñoom li nu am sëñ tubaa rek la te fu li leen ko may mooy yoonu ak taali bi rek te taali bi moom Cheikh Fall la ko jàngale woon moo tax ba nu fa tàbbee am na ñu am mbégte lool bari na si ñoo xam ne bañ demee teraanga yu rëy rëy la ñu defal si ti mu nu am si ne kër Cheikh Rafal njabootu Cheikh tey bu nu agsee fii euh, wax ki diggante yu yaatoo yaatu yoo xam ne nettali nañu ko kër sañ Modou Khary Niang ba si Lansar fenn fu ne dem nañ fa waaye tawféex rek lañ gis ñoom ñëpp it wax ni ñoom day jaajuwaat nañ bu baax a baax njaboot gënu yilifit wax nañ jox joxe nañ kàddu ñu soññi njaboot gën yilif si biir réew mi ak fépp fu am murit ndax jàpp nañ ni fu mu murit nekk rek yaa ngi si sa biirub Touba kenn ku ne dellu nag jaajuwaat farluwaat si njaboot gi nag muy soññi njaboot gi góor ñi ak jigéen ñi waaye ak taalibe ñi nga xam ni seen yaakoor génnu sëñ Touba nu xam ne ñun li nu am weesuwul sëñ Touba li nu am moo weesuwul baatub sëñ Touba bi muy sa kàddu gi waaye li nu am weesuwul dëkkub sëñ Touba bi nga xam ne lu mu am rek si dëkk bi la ko la ko la ko yéene mu fi la ko jooyal loolee ñoom ñëpp maase nañ wax ni liggéey bi day du du jàpp nañ ni sax du doon luy métti ndax wet gu ne ka fa féete nee na fas na yéene ba moom fa mu féete dana jàpp ak wetam ba dara du sa booy ba tax loola loola nag lañ ñëwoon di ko gaaral si sëriñ bi dem nañ si euh, ñi nga xam ne ñoo jiite quartier yi ndax bi nu ko seetee mat nañ ñeenti téeméer yu yu yu tuuti am na si ñoo xam ne seeni i jëwriñ woo nañ leen day def ak ñoom ab jataay xamal leen leen liy xew lépp si biir gox yi lay xew te gox yi ñoom ñoo fa ne jiite njaboot ga fa ne ñu xamal leen ne lii sëriñ bi bëgg ñoom ñoo si mën a jàpp muy soññante ba ñuy soññante si seen biir ak labirante ga si daayira yeeg daje ya ñuy am ak xew yi ñuy am ñu sàmmonteeg bëggu sëriñ bi ba sëñ bi du fi dégg dara loo xam ne lu ko lu ko dul neex la ba ñoom ñëpp ñoom it jaaju nañ si bu baax a baax fas nañ yéenee teg yoon yoo xam ne danañ si ànd liggéey ba ba ni ko sëñ bëgg mu amee ko ni dem nañ sa police ba fekk fa commissaire moom it waxtaan nañoo moom xamal ko ne ko sëriñ bi day bu yàggu dara rek woote na am ndaje jël liggéey bépp teg ko seen loxo kon nun ñëwunu sëriñ bi santunu nuy dóor kenn sëñ bi santunu nuy fitnaal kenn sëñ bi lim nu sant mooy nu laabirante ak suñu bokki taalibe yi bali li sëñ Tuubaa bëgg si dëkk bi mu am ko laabirante googi nag si lañ fas yéenee sax waxtu nu doxee ba dajeeg nag koo xam ne gantal na loolee te tegu ko luut si bakkanam bu boobaa daanu ko jël teg ko si seen loxo yéen ñi nga xam ne yéen la fi sëriñ bi teg ngeen ngeen yor yoon tey jii lan mujjee si commande na capitaine bu mag bi nga xam ne moo jiite muy capitaine Wade fa lañ bàyyi koo jëm si fii jaar ko sëñ Dame Diané soo a egg ci fii moom it kàddu yooyu lañ wax ak moom fas nañ yéenee dem si préfet ak sous préfet ak yeneen bërëb yi nga xam ne des na ngir nu nu mën koo mottali waaye noonu ko sëñ waxe woon rek buñ sàkkoo nu teew fii tey nga sëñ bi gën noo dolli sëñ bi gën a dolli tali bi nu xam ne liggéey bi yaa ko liggéeyloo maam Cheikh Ibrahima Fall ak njabootuk Cheikh Fall gi yaa woote jox sëriñ bi ndigal mu woo ak njabootam sant leen ko fas dañu yéene nag dox si doxin woo xam ne doo si dégg mukk lu la naqari doo si gis mukk loo xam ne loo loo lu lu wuuteeg sa bëgg-bëgg la te am nañ yéene pas ni nga bëgg dëkk bii mu mel ni ak njabootu sëñ tubaab gii ak sa njabootu bopp gii ni nga bëgg mu mel ni dana mel kenn mënu si lenn li sëñ Touba bëgg day am te yaay sëñ tubaa loolu mooy kàddu yi si ak gàttal njaboot gépp a ngi nii nag jox kàddu kaddu gi mu diis loolu waaye nag Mbacke ñu ngi sant bu baax Mbacke waaw waaw. sëñ sëñ bi nee na lii amul sikki sàkk si ne lépp sëriñ bi rekk la nee na danoo dox ba agsi si rek waaye mooma nee na alhamdulilahi rabil alamin nee na am na mbégte mu rëy rëy rëy moo xam ne menn mbégte mënu koo mënu koo dab nee na li si gën a doy waar nee na si lii la xëy moom sëñ nee na xamoon sax jotaay bi dina am nee na ni mu si xëyee nee na dafa seet ni sa doxin yu njëkk ya kilifa yi dañ daa jéem a musal seen bopp. nañ ko daa musale. nañ ko daa musale. mooy ay tata. mooy ay tata. yoo xam ne. tata yoo xam ne. am na si yoo xam ne. am na si yoo xam ne. bu noon yi ñëwee. bu noon yi ñëwee. mën nañ faa am ay weer. mën nañ faa am ay weer. duñ mën a dugg fen te duñ mën a dugg fenn. loolu doxinu adduna la. nee na loolu doxinu adduna la. la sa daa am nag. la say maanaama. nee na mooy dox moom rek kay dox si coobare sunu borom nee na fagu gi nag fagu gi fagu gi nee na am na yàqin si ne lu mat a fagu nee na sëñ bi fagul nañu ko te jubóo na seeg boromam lu mat a ñaan ñaan nan ko ña ñaanal nanu ko te borom nangu na ko alhamdulilah baal fekkoon ne mën naa dal ci àdduna. bu fekkoonte ne kon xel mën naa dal si àdduna. suñ xel nee na suñ xel na dal. mën na noo tëdd nelaw. waaye nag àdduna moom. coobare sa borom. si coobare sunu borom. dafa am nu muy doxe noo xam ne yëngute yaa ngi ci biir. te doomu aadama nag. te doomu aadama nag. te doomu aadama nag te doomu aadama nag moom. te dafa am ak doyadi. te nee na doomu aadama nag moom dafa am ak doyadi. doyadi doomu aadama moom lañ koy tudde moo tax nag moo tax nag. faggu mënta ñàkk. li ma xëy li mu ci xëyee. nee li mu ci xëyee. Eh, dafa joxe ndigal. dafa joxe ndigal. ci ci matlabul fawzeyni. ci matlabul fawzeyni. mag ñi làkkub Tuubaa lañ ko tuddee woon mu bëgg nag loolee ñu jublu si fas yéene koo jëfe nee dafa joxe kuréel boo xam ne bis bu nu xëyatee bala noo def dara nanu jàng Matlabul Fawzayni te njàngin wa nag nan ko seet bu baax a baax na mu gën a nasoo na mu gën a neexe nu di ko nu jànge alhamdulilah rabbil alamin loolu nu am ci pas-pasub nee la si suñ kem kattan ñu jëfandikoo ko am ci pësteefu gën a aar Touba kaaraange goo xam ni Sénégal xaj na si julli yëpp xaj nañ si alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi nee loolu joxe na si ndigal ah, nee lool bu si joxee ndigal si suba si jotaay bi am nee lool du moom nee na sëñ bi rek la <laughs> jërëjëf Mbacke <laughs> alhamdulilah Mbacke waaw nee na gannaaw ba loolu wéyee kaaraange mënta ñàkk te ku ne xam na ni maam Cheikh mooy kaaraange ak yoon wi loolu ku ne xam na ko. ndax moo ko jëkkee woon muy dox ba jamono agsi fii doxinu jamono nag day soppiku kon nag na gën a leer kaaraange gi si dëkk bii tey gën nañ leen koo dénk gën nañ leen koo dénk gën nañ nu koo dénk nun njabootu Cheikh Ibra Fall la si gën a metti nag mu gën a metti sëñ bi gën noo naqari mooy politique si dëkk biir dëkk bi loolo nañ ko jaare si aw yoon waaw waaw sëriñ bi nee na dëkk bi liñ ci gën a bañ mooy politique mën na noo seet feneen fu ñu koy defee nag waaw waaw nee sëriñ dëgg la Mbàkke du ko tudd waaye Mbàkke ngi fi waaw waaw nee na kon loolu moo jiitu nee na kon liggéey baa ngoog waaw sëriñ bi nee na li ma waroon wax lépp dugg na sunu biir yi wax nee na dégg na wax ji bu baax nee na noonu dong la demee kon kaaraange ga nee na mu ngoog lañ ciy war a dolli moo di lépp na ànd ak jàmm hmm, alhamdulilah rabbil alamin loolu buñ ko waxee ku ne war koo dégg ku war koo gëm sëriñ bi jóg na liggéey liggéeyam bii muy liggéey bu rëy borom boole koog noon yu am doole noonu yu bon a bon a bon noonu yu soxor a soxor mu ànd koog ñoom ba gongi koog ñoom dellu si fii si dëkk bi ba mi ngi fii dëkk bi te xat damut nee na benn toq deret tuuruwut nee noonu liggéey baa ngi noonu noonu la ko fi bàyyee nee nañ liggéey te liggéey bi rafet liggéey bi sotti liggéey bi wér te jàmm rek ay xew noonu la ko sëriñ bi liggéeyee kon doona laa ngoog nan ko doon rek te jëfe ko noonu nan fab sunu lépp def ko si sëriñ bi nee na xam loolu moom yéen la waaye xam na ko waaw jërëjëf Mbacke. nee na da ko wax nii rek waaye xam na ne nun ña sax waaw. nee na kon suñu yitte jëpp. suñ xemente bépp. suñ jublu gépp. lépp nay sëriñ bi. nan ko xool rek. buñ xool gis dara si dëkkam bi. mel na kuy fetal rek boo gisee leneen lu rab ngay diir boo gisee leneen rab bi ngay diir doo jam dara kon alhamdulilahi rabbil alamin ndokk bi nga xamee ne lii sëriñ bi rek la xam na ni moo ko santaane waaw jërëjëf Mbacke kon mënatu la ñàkk kon kaaraange gàngoog nee na baatin bi moom sëñ mi noppi na si waaye saar si nag nee na dénk nañ nu ko lépp nag itam lu si mat a teg si yoon daanu ko jaale si yoon teg ko si yoon ba nu mën a dox nam gën a rafete nam gën a ëppe njariñ loolu nekk la demee jërëjëf Mbacke waaw ginnaaw nee na sëriñ bi de mu ne see doole dara Mbacke waaw alaay Mbacke alhamdulilah Mbacke nee na ginnaaw dafa joxe ndigal muy ndigal lu rëy a rëy si Matlabul Fawzayni te te yëgul woon ni lii dina am jataay bi dajeeg ndigal lool yi nee loolu sëriñ bi rek la kon nag jërë ngeen jëf mi ngi noonu rek kaaraange gaangoog seen kem kàttan xam ne nuñ ko bëggee rek daan ko ni amee alhamdulilah rabbi alhamdulilah Mbacke nee na lu si dool dana ndax lépp wax naa <laughs> waaw Mbacke waaw lu si des rek incha allah daanu ko toppaat ba mu gën a tege si yoon ba nu gën a mën a def sunu liggéey voilà waaye li gën a ñor sëriñ bi mu jóge si dëkk bi mooy politique waaw na jóg na fi dem Mbacke doo ko fi dégg de waaw nee na yooyu yëpp itam mën naa génn dëkk bi waaw wallaay Mbakke waaw jërëjëf waaw waaw waaw <laughs> jërëjëf Mbakke jërëjëf Mbakke waaw sëñ bi nee na nee na xolam waxul sedd na waaye toj na <laughs> waaw si nee si jataay bi waaw <laughs> waaw ah, sëñ sëñ sëñ Abibu waaw waaw sëriñ Abibu Mbàkke sa sa moom moom sëñ Fallu ah, dañu faa dem ngir taxawaay bi mu am si liggéeyu sëñ Tuubaa bii ak jàpp gu mu ak ñor gu ko liggéeyu Seera Faal bii ñor nga xam ne lu sëriñ bi masane rek ñëw na ànd seeg nun liggéey yi nga sant sëriñ bi yëpp bu bu nu ko bu boo bu ndigal li rotee rek mu ne lu Tuubaa si kanam am si jumtuwaay na ko daal yóbbu teg ko si loxol njabootu Cheikh Fall gi mbooleeg di togg ay ñam saa sune di indi moo waraloon bëkk démb dem nañ ci Serigne Abo waaye nu nañ fa dem ndax daam cëru boppam ci liggéey bii bërki démb ba nu fa demee mu mu daal di génn ñaari junni daal jox sëñ Asan mii ne ko damay ñaan ndigal ci sëriñ bi nun nañ wut téeméeri junniy murit ku ne joxe ñaari junni nee na mu doon milliard ñu jël ko def ko foo boo xam ne si la ñuy liggéey li sëñ Tuubaa li mu bëgg si dëkkam bii ci oto yeeg oto mbalit yeeg oto yi dox ak oto yi sàmm ak di wattu mu ne sàkku naa bu ngeen demee fi sëriñ bi ngeen dimbale ma jotalal ma ko loolu <laughs> te du yàq leen nit ci ci liggéey ba mu ne <laughs> waaw sëñ bi boo waxoon loolu <laughs> waaw waaw waaw jërëjëf waaw sëriñ bi ne dañoo am ndigal tam nag ci loolu ngeen ñi ko ñi ko daa ko séqal ni ñu ko séqal ñu waxtaane ko ak ñoom te ànd sa ak ñoom ci lu koy defar lu koy yombal ñu ànd sa ak ñoom lu mel ne tey bu oto bi ñëwoon war a ñu bañ a wotee si biir dëkk bi bañ a réunion si biir dëkk bi bañ fee wootee incha allahu mbakke bu soobee yàlla dañ koy ànd ak ñoom ñu jàpp leen ba lépp tege si yoon waaw incha allahu waaw nu génne bureau de waaw waaw waaw waaw lu baax li mu bëgg eh, sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng mu ne li baax li sëriñ bi bëgg lu baax li mu bëgg nee na lu baax li sëñ bëgg nu bëggal nee na lu baax rek nga bëgg Mbàkke te moom nga nu bëggal waaw waaw waaw waaw ni ñaan si doole Cheikh Rafal sa sa borom yàggal lool waaw na wi doon aw doj waaw noo bëgg a jekkoo liggéey sëñ Tuubaa bi ya eh, ñu ngi ñaan ci doole Cheikh Rafal yàlla na ko jëkkoo noonu barkeb sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafal waaw waaw waaw. nee borom day mel ne lu gaaw si coobareem. nee na ni mu ko waxee rek. nee na Cheikh Rafal kaaraange si moom la jëkke si la nekkoon. ñu dox ba si fii tey waaye nee na genn jublu gi la rek buñ ko yeesalaat si nun kon buñ ko yeesalaatee si nun nee na mooy lawoon rek nu xamee ko noonu rek te téye ko noonu doxee ko noonu di wéy di wéy di wéy rek topp sëriñ bi rek alhamdulilah rabbil alamin وتسبي الصلاة للصحابة